waaw tey Badara la ñu am. Gajaga waaw Gajaga sama la nag xamal loo ciy wax. bi daa xame xarit. ah déet xamal loo Badara sama xarit ah béti mais lii man mii des fois may indi sama xarit teewul damay bàyyi ngeen tëj ci ba mu nooy. sunu yoon ci ay xarit. Euh, waaw sànq. moom mooy xarit Serigne Daara non non mais plateau bi moom xarit bay waaye waxal waxal man indiwuma fii Moustapha Dramé ngeen tëj ko ba mu nooy. non man mosuma tëj. ah te Moustapha sama waay la. non man tëj moom Moustapha moo tëj boppam. <laughs> man fekk ma fi. te Moustapha dana ñëw de Moustapha dana ñëw balaa yàgg incha allah. moo tëj moom boppam. des fois indi fii sama xarit waaye béti léegi béti PDS mu kii la ku ci tucc tuccal la. man leen bàyyi ngeen nag bul ma taqal bàyyi ngay def. waaw ah. hmm. kon nag kon nag bàyyil mi mii ngay wax nag mu ñëw rek ñu xool mën naa am duñ ko tucc tuccal mën naa am ñu yërëm ko ndax. victime la saa a xam ne Badara gajaga invité nañ ko attaaya ba sonn ci attaaya njëkk ji. aywa Badara moomu <laughs> Badara moomu damaa dem léegi ci internet bi di xool. Hmm. Euh, gis beneen waajoo ji nga xam ni moom làmmeñ yi ba ma ko moom xaw ma lan Moustapha Jaxate la moom làmmeñ yi musuma gis mu wax ci lu lu rafet gis naa ñu mu ne ca ginnaaw boobu nag daa ñuul kukk xaw mën a xeesaayu léegam bi lu ko waral ndax léegi daa xees ma nga ca wetam daal te tafaale nañ ko ci vidéo bi waa jooju nga xam ne musu làmmeñam bi musumaa gis mu wax ci lu baax Badara vidéo bi nee nañu 2019 la li ko bind nag moo ko wane man xam nga Badara wax dëgg yàlla fan yii laa ko xam ci kii bi waaw wax dëgg yàlla taxul woon mu nekk ma miin nag wax dëgg yàlla ñu dem xoole ji vidéo yi nga ko wax ci président ak li mu dictateur ba mu nekkee ci réew mi Badara ko wax nag du man après ñu dellu si waat. président Macky Sall acquis démocratique bépp boo xam ni Sénégal amoon na ko mi ngi koy foulé au pied ñu koy xamal ni bu dee kàllaama ñaaw ak def lu ñaaw le secretaire nationale des jeunes actuellement de Rewmi est dans les liens de la détention lan lañ leen di toppee dem nañu ba RTS wane seen naqar ni lii nga xamante ni mi ngi am ci Sénégal tey du dëgg du yoon ñu wane ko. loolu la ñu leen jàppee am ci ndaw boo xam ni Basirou Dieng la tudd bokk ci njabootu sëñ mun euh, sëñ Moussa Nawel ñu jàpp ko filmer rek la doon def ñuy xamal ni au même moment suñu mbokk pur bi ñu leen di attaqué Tambacounda bi ñu demee ba génn euh, Tamba dañu leen a dab ci yoon bi nit yoo xam ni nëbbatuñu woon à visage découvert am ay journalistes yu leen identifié xàmmee leen ñu jël ay oto taal ko ñëpp di gis jël ay nit di leen waaj a rey yàlla rek moo ci def ndox mu sedd mais foofu mënoon nañ fa rey ay nitu pur yu bari ñu gis ni la procureur ne s'est pas autosaisi ñu gis Penda Ba une dame bu dëkk ci zone Fuuta bi dëkk fi nga xam ni fa la Farba Ngom dëkk taxaw na jël xeetu lëmm saaga leen fa saaga gën a ñaawee joxar bi ko wax leen ko te dañ ko jox passeport mu génn Sénégal Sénégal nag tey ku artuwul ku attewul ku artuwul di nga atte li ñu gëm mooy kilifa yi ñu fi am ñuy nit ñu baax le président Idrissa Seck ak coalition Idy 2019 ànd dem ci sëñ mun taxa mi nga xam ni moo fi Sëriñ Tuubaa tey mu ni leen Sénégal de fan yi ñu toll séntu woon nañ ko ci yeneeni bëccëg yu dul jàmm ji yéen ñi tax jàmm ji am am ngeen ndam lu rëy loolu la sëñ Muntaxa wax ndax liñ ñu catégoriser woon mooy opposition bi dañoo bëgg a taal réew mi tey ñu gis ni réponse bi ñu def ak moom mooy ñu dëkk bi dara tàkku fi mais wan nañu àdduna Macky Sall tey ngañaa ngañaayam gii mu naan ngañaay la foqateem gii mu naan ngañaay la Sénégal dafa mekk ci mel na lu nekk ci dëj mel na lu nekk ci dëj mel ne ay nit dañu am naqar parce que dañu confisquer seen vote loolu nag moo ko jaral tey muy xoqatal di tëj ak di vraiment def ay ñaawteef yoo xam ni intimidation yi weesu na ko dafa passé carrément à l'acte bi ñu boolee loolu lépp nag ñu gis ni li waa APR di def ci ñaawteef gis nañu fi ndawu APR yu àndandoo dem ba buntu pale de la république yaakaar naa bu naan sacralité ak lieu boo xam ni war nañ koo respecté palais fa la sacralité xëy na yam ñu taxaw buntu pale ba di joxar bi ay xeer di dóorante ci biir pale ba di xeex ba ñenn ñi di taal ci buntu pale ba mais vous nous demando demandons de la presse ndax gis ngeen kenn ci ñooñu ñu arrêté ko tey c'est clair net et limpide que Sénégal nous vivons maintenant dans une dictature te loolu duñu ko seetaan dem fekki suñu frères yi ak suñu sœurs yi kaso moo ñu ko gënal li waral nag déclaration bi mooy harceler ak topp gi ñu président Macky Sall di ñu topp di ko xoqatal ak di di def lu ñaaw ñaawteef diggante moom opposition bi bu dakkul dans les meilleurs délais nous la jeunesse de l'opposition du Sénégal nous allons rappeler à un rassemblement national de la des forces vives de la nation à la place de la nation muy place de l'obélisque ñuy woo sénégalais fépp foo nekk ci Sénégal nga jël si kaar yi ñëw fekk si ñu ñu taxaw def rassemblement pacifique fi nga xam ni mooy place de la nation pour xamal Sénégal ak àdduna li nga xam ni moom la ñu nekk di dunde tey du ñu nag taal Sénégal du ñu topp Macky Sall ci fi ñu bëgg a woo ndax ñun dañoo dem ba dañoo jaaxle dañuy xanaa régime bi dañ leen a laaj deret ci nit ñi moo tax ñuy xoqatal nit ñi di leen xooñañal pour ñu génn ñu boom ci ay nit kenn mës a gis nit koo xam ni nee nga gañe nga ñu ni la ñun gëm nañ ni gañe waaye déposé wu ñu recours ndax sa justice bi nga xamante ni conseil constitutionnel bi nga xam ni moo téye ay candidat injustement conseil constitutionnel bi nga xam ni lépp lu président Macky Sall commandité loolu la koy defal duñ fa dem naan dañ fay def recours waaye adduna mi ngi taxaw di seet. voilà mi ngi noonu kon kooku mooy Badara Gadiaga Omar euh, li mu jeexale wax ji nee na président Macky Sall lépp lu mu commandé moom la ko conseil constitutionnel di defal ci ñi kaleek ñi nga xam ni bëgg nañu dem ak bëgg ñu dem loolu nag kàddoom la goo xam ne yàgg na lool ñu génnewaat ko. Badara nag kii ma dégg moom borom xam-xam la maanaam ni ma ko déggee daal ku maîtriser réew mi laat ku xam ni réew mi di doxee la borom xam-xam la léegi nag loo jàpp ni moo changé ci ay waxam ba gars yi di ko génne laat waxi 2019. waaw xam nga des fois euh, gars yi dañuy diwoo loo xam ne xeeñuñu ko. Hmm. xam na man réseaux sociaux ci laa gëm ni yàgg naa gëm nag mais gën naa ko gëm. Hmm. ni dekki am na bis penc am na lu waaye doon dund rek dina la ko tegalaat. Hmm. réseaux sociaux moom loolu la ma wan léegi nag lii dalay wan incohérence ak inconstance boo xam ne dafa am ci ñun sénégalais ñu bari du sax nit du politique yi kase bari na ci ñun ñoo xam ne tey ji intérêt personnel rek nañu mais intérêt général du tax ñu wax loolu nag mooy tax seen kàddu di toxu am na ñoo xam ne tey seen wax yi démb day méngoo seen i wax yi tey mm. parce que ñoom fi ñu taxaw dañ fa taxaw ay principe moo leen booleeg sénégalais yi mais du ay contexte contexte bi mu doon waxee mi ngi nekk ci parti réew mi situation politique bi toll fu mu tolloon mu wax tey ji ni mu waxee mais yenn saa yi nga dégg ci émission mel na jàkkaarloo fa laa koy gis muy wax di ko jëmale ci ndaw yi tey yi alors que ndaw yi tey yi moom li mu doon wax rek lañuy waxaat waaw maanaam booy yi ngay dégg yépp li discours booy la. waaw li mu doon wax moom. moom la booy di wax rek. mais moom du rafetlu waxi tey yi. lan moo dox ci diggante bi. Mhm. ba tax waxam mën a soppeeku démb. Mhm. ak tey. Mhm. mooy position yi mu nekkoon moo yëngatu. d'accord bee opposition la woon mi ngi parti réew mi ànd ak Idrissa Seck. tey jii mun na am nee na dafa neutre. non léegi waaw dafa neutre waaw. léegi. saa sa yoon nekku ci de <laughs> génnal ci waxam. waaw ah, parce yëguma benn parti boo xam ne mu ngi fay militer en ce moment lu dul gis ko ci ab émission mu toog waaw dama koy respecter nag mhm. kàddoom parce que kàddu comme dafa nekk ci débat contradictoire comme émission jàkkaarloo bi ñuy wax mhm. buuba day wax li ki wax li ki wax li ki wax li ñëpp buñ déggoon li ñuy wax émission bi du intéressant waaw loolu tax moom des fois day mel ne ku xaw a fara nguur wala yenn saa yi mu mel ne day mat di ëpp ak yooyu yëpp mun nga ko nangul parce que opinion la mais man xamoo lu ma dul nangu mooy bu doon ni tey day politique ba léegi waaw ñu ne Badara Gajaga bi nekkoon réew mi moo dem Benno wala APR foofu mun nga comprendre mais choix wu yi ñuy tànn ci plateau yi des fois aussi loolu mun nga ci xaw a lii tuuti parce que dañuy jël koo xam day politique mm-hmm. moom politique la te ñëpp xam nañ fu mu mës a féete ñëpp xam na ni muy doxee d'accord maanaam ñu bëgg ko sangaat ba mu set bëgguñu ko présenter comme nit ku neutre d'accord alors man loolu mooy mooy sama problème mooy ki ñuy tànn naan chroniqueur la nan ko tuddee beneen tur budul chroniqueur budul chroniqueur pour sauver ko loolu nag boo ko defee da koy sauver fekk yaa ngi ko tuddee chroniqueur waxi démb yëpp mën nañ koy indi macha ko tuddee tey ki mu doon dañ ko tuddee chroniqueur aywa parce que chroniqueur daa a mel aussi jërëjëf Omar bun Xattaab bi mhm. ma jigéen bi nga seetaanee Baja Badara def naa yom yàggul dara yow ak alaaji traité ngeen ko man sax ci laa commencé di dégg turam nag kii yu ma ko woon léegi Badaram démb meeg mu tay mi daa am wuute wala na am na tuuti différence parce que euh, li tax Omar mi ngi koy wax tout à l'heure lii mu doon wax nii pourtant lu lu lu yenumaanaa la lu lu amoon la si jamono bi mu bi koy wax parce que yi mu expliqué yëpp doon nañu dégg ñi ñi ñi koy ñi ñi koy xamal léegi nag su demee ba moom nekkatul foo xamante ne ni euh, waratu fa wax mooy li xale kii waxoon xalif ki kilifa mi ñu fi invité woon mm-hmm. ma koy laaj ne ko lu tax xeexatoo mu ni ma am na fooy toll da ngay nekk mag nekk kilifa da ngay gunge xale yi mm-hmm. mais du tee fa nga nekkoon fa ngay nekk ba léegi mm-hmm. li bon nag mooy nga doon xeex lenn li di wax ni nga xamante ne ni moom la gouvernement bi di doxali ask ak askanu Sénégal nga continuer ci lancé boobu loolu la Khalifa def mais moom tey dafa xeex xeex xeex ba dem ba xam ne mënatul a xeex wax waaw mooy lu ma la wax rek xam nga mu wax wax ci xeex la bokk le fait que ngay dénoncer rek loolu xeex la n'est-ce nga dem ba tey jii nii léegi loolu nga doon def yow say rakk ak say doom di ko di taxawaay am taxawaay boobu ci ay position nga ni lu tax xale yi di comporter woon nii lan moo tax xale yi léegi seen i kaddu di ñagasta moom ku dégg lu kàddoom yi ak li xale yi di di dénoncer léegi nii daanaka amul benn différence mm-hmm. léegi lan moo tax nag nga nangul sa bopp démb loolu tey nga bëgg a taxaw ne say rakk ñi ngi aw si say tànk yow si li nga doon dox ñoom defuñu lu dul topp si li nga doon def tey jii nii nga ne noonu loolu baaxul loolu aussi day permettre nit ci di wax ni sa wax li nga doon wax démb ak tey position bi nga amee nekkatul benn macha allah yaral sa toogaay bi nag ndax yow rek yaa fi kiij kiij ji non si <laughs> déedéet waaye nag ñëpp kiij kiij ji yow kiij kiij ji <laughs> déedéet moom rek ay kiij kiij ah. <laughs> Adja lii lañ def Badara mi nga xam ne nee nga sawaay la maanaam daal euh, booy ñu ngi koy def ñaaw. Hmm. man nag lii ñu lii ma teg nii. Hmm. monté wuñ ci dara nii laa ko jëlee. Hmm. ca internet ba indi ko teg monté wu ma photo bindu ma defu ma close croix ma léegi lii ñu koy génne laat yow da nga ci am beneen xalaat bu dul waxi tayam wala. waaw man de Badara xam naa ni réew mi bu sa Seck bi muy wax lii defe naa ni fa la nekkoon mais gannaaw si dégg naa également ñu ne dafa démissionné. Mhm. nekkatul ci réew mi li Omar wax dégguma ko ci benn parti politique bu mu bokk avant. Mhm. Euh, xëy na gars yi dañ dafa jàngate ci jàkkaarloo nu leen neexul wala noo xamante ni ute na ak li mu waxoon ñu indi pour fàttali. Hmm. man vidéo bi vidéo fàttali laa ko tuddee rek. xam naa dañ koy fàttali lim daan maanaam ba dara fàttalikul démb loolu moom lañ ci jublu daal xëy xam naa xëy na loolu lañ ci jublu. Hmm. déggoo li ma wax jàkkaarloo ga mu nekk. xam naa wax na fa wala mu développé noo xamante ni. Hmm. bokkul ak vidéo bi mu ci daan wax. xam naa xale yi ne xaar ñu fàttali ko. looy wax xale yooyu def loolu magam jëm kenn dina ko def lii duma leen yedd xaw ma mag ko def xaw ma xale ko def yedduma kenn <laughs> joxal saa eh, bàyyil il l'avait dit il l'avait dit uh-huh. bàyyil kii jàmbur Assane moom moom joxal hélas bàyyil kii Assane naan joxal saa njëkk a créé baar ki sa di baar nii la daan baar ah ji ci ataaya la ko indi <laughs> Badara mi ma la tegal nii vidéo bi yow gisoon nga ko wala gisoo ko. Mm, gis naa ko. gisoon nga ko ci réseau. ban jàngat nga ci def bi ñu ko indee ci penc bi. waaw xam nga euh, fàttewul dara waa ji. fàttewul moom saa yu toogee day fàttali. waaw waaw day day wax ne. année sangam man ak diw ak diw ñoo nekkoon fee ci fàttali rek la dëkk. moom Badara lii. <laughs> lii ñu ko tegal fàttewu ko. lu tax ay waxi tayam soppeeku. loolu mooy wax ci parce que lii mu doon wax moom nga koy wax ne ko loolu la xale yi tey di wax nii te même système ki mu doon waxal moom la xale yi dox comme ki mu doon waxal moom soppeekut président Macky moom nañ nangu ni ca jamonoy Idrissa Seck ak yooyu yëpp mu doon def soppeekut mi ngi ni meloon ah, d'accord kon ñii ñoo soppeeku ñoo soppeeku président Macky Sall soppeeku mi ngi ci logique bi mu nekkoon na mu doon doxalee noonu lay doxalee ba tey kon soppeekuwul ki muy jàkkaar lool nag mën naa sopp tur bi mën naa soppeeku ñu ne kii waaye la mu doon jëf kële rek loolu lay jëf ak kii kon mbir mi soppeeku léegi moom bu fekkente ni bi moom démb daan na waxee ne hmm. tey mu ñëw di waxee neneen nu waroog noonu bañ koy indi laatal ay waxam mais alaaj jamono yi changé nag est-ce que du ci jamono yi discours yeeg euh, moo tax mu changé wax euh, xam nga booy yi xam nga xam nga xam nga booy yi hmm? booy yi naan naan naan te lañ quoi booy maanaam ay raccourci la ñuy def quoi. Hmm. waaw xam nga tey ji xam nga yéen xam nga ñun yàlla dafa def dañuy toog nii di chronique di wax rek. Hmm. waaw di wax suñu xalaat. Hmm. mais ñu bari ñuy chronique waxuñu seeni xalaat. Euh, du ma ne diw wala diw mais dama la bëgg a xamal ne la ñu bari ñoo xam ne ñu ngi toog ci plateau yi ay mercenaires. xalaatu kan lañ yow dañ am na bari na bari na hmm. waaw mais ah, nga xam ne ñoom du ñoom ñooy wax daal ah. mercenaire du yebeel la saa ah? du yebeel ku lay am na bari na bari na am na ñu mel noonu report report report am na ñoo xamante bi ci chronique yi ñuy def tooguñu rek ngir joxe seen xalaat mais dafa am nu muy demee hmm. pour di jàllale ay message saa dama lay dëgg loolu dafa am dama lay dëggal dama seetaan kii doguma la Cheikh Ousmane Touré Sénégal mu ne bi report bi di waañ mais moom am na ku ko wax xaw ma ku ko seet si na ko danoo bëgg ngeen defal ñu communication. ci report waaw loolu dañ koy mm. def moo avoué loolu moom. ah loolu day am prix. loolu dañ koy waaw day am prix. day am kii nee na bari na kii. léeg am na ñoo xamante ni bii tey dañuy ñëw ci plateau di wax ci ay dossiers yoo xam ne nga defe ni dossier bii fi nekk dañ leen koo jox. Mm. mooy waral VAR di leen jàpp ëllëg waaw. léegi ëllëg ñu joxaat la beneen dossier man am na ay temps ci comédie rek yoo xam ne boobu dama doon gëm ci comédie laay rek mais am na ay ne bi joxoon nañ ko tey am na ay dossiers yoo xam ne bi moo ne woon dossier sàngam mi ngi ci man hmm. nit ñi dañ ñaan bi te boobu ci comédie nga nekk billaay comédie yow billaay barke yàlla yow lay doyee gis nga pour te dire gis ci message waaye dañu soxla rek maanaam message am la bëgg mu jàll ok ngi dégg pour te diir que ni nit ñi nii lañ lay joxee ay dossier dossier yoo xamante ne bi dañ naan da nga naan mais man dossier yii comédie mais fexeel noo ci draayee mais man ma la fi tegal ay intellectuel la dépassé na ñu leen ah. di ñu leen di jox dara ay intellectuel laa lay tegal xam nga ni ba ay intellectuel niveau boo tamit kii la dañu soxla ay loolu dañu soxla hmm. ay kii ci point bu ne intellectuel bu am xel jàng c'est que xam ne ràññee dama la bëgg a waxal ne la hmm. son yi système bi ni muy demee moo nekk loo xamante ni bii lu garaaw la. moo tax pareen saay ndeysaan da ngay gis nit ku toog di déglu rajo fekk rajo ya ko formaté. Hmm. ñoo ko defaraat dugalal ko ay idée di ko manipuler maanaam xibaar yi ñu lay jox. tey jii gis nga tubaab yi nit ñuy joxee xibaar. Hmm. dañuy manipuler. Hmm. lu tax bi nga xam ne bi journaliste américain boobu mi ngi bëgg a dem Russie pour loolu américain yi yéeg ñëpp mere ko français yëpp parce que dañu xam ni tey mbir mi toj. tey Poutine wax te bu waxee dina jàll sans filtre lépp dina jàll ñu xam ñu gam-gam la ñaari xibaar yi équilibré mais da nga doon ñëw rek ñu lay jox ay xibaar lii ak naa na lee kërëb kërëb euh, dugg na fii génn xam nga mm-hmm. di manipuler da mm. fekk ni nekkul loolu mooy réalité bi nga xamante ni bi mu am léegi nag ñu ne nañuy discrédibilité yàq waa ji deram daal di wane ni kii bi kiiwu loolu la quoi jéem a dal ci kawam mais terewut sa waay def na li nga xamante ni bii moom mooy euh, interview am. Mhm. wax na seen après àddina bi déglu nañ daal dee gis léegi nag loolu mooy li nga xamante ni bii tey moo am tey gars yi bu ñuy préparer dara dañu am ay nit ñoo xamante ni bii ñooy ne ci plateau yi. yaa ngi dégg. nit ñoo ñu nekk ci plateau yi nag. mais ñuy bëgg a def yenn yi war nañ ko yëg. dañ leen ko non patron de presse yi est-ce que jiite wuñu ñoo ñoo ñoo <laughs> dañ ci ne. ci ci yëpp la ne dañuy yooyu. non ci yëpp la ñuy ne am na ci ñoo xamante bi ay ay kii la cavalier seul la ñuy dem mais am na loo xamante bi xibaar bi mën nay jóge sax ca kaw di wàcc ci gaay yi. Ah patron ba mën nay mën nay doxalee noonu. dañ lay jékki yow di wàcc si di wàcc si ci gaay yi. Hmm. bu ko defee nga xam ni boo léegi xool leen ni ngeen di comporté woo il faut ngeen di waxee nii ngeen di doxalee nii ngeen di defee nii. yooyu day am. mais soo lan mooy intérêt donc loolu mooy loolu mooy problème bi mais nit ki moom bu fekkee dem bi la ko doon kaas démb hmm. gis nga ni kala ko tegoon sooy bu mii teg na ma dara mm-hmm. ma koy kaas ëllëg sibir ma gis même sooy bu moomu teg ko Omar mm. bu ma toogee di dal ci kaw Omar ayca mënumaa fàttali ma sooy def ayca jeex na mm-hmm. jërëjëf kon mi ngi noonu tey Badara Badara moom lañ indi woon xam naa euh, jox mbokk yi di daje suba rek ca 11h lañ bëgg waxtaan ci mbirum Imam drame bëggoon nañ ko indi ginnaaw bi mu waxee ni dafay dem te ànd na ci dialogue bi mm-hmm. defaat na beneen vidéo wax ca leneen <laughs> loola nag dañu bàyyi ba suba ci 11h rek ci Jomet incha allah ñu indi ko.